وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي euh, mbokk yi ba tey rek ñu ànd ak yéen ci fi nga xam moom mooy musée bi nga xam ne donc fa la ñu amalee exposition bi ci journée bi nga xam ne mooy semaine bi Serigne Bassirou Gueye euh, yaa doon def sànq euh, waxtaan bi nga xam ne mooy thème bu am solo thème bi jëmoon ci mayi Serigne bi. nga tënkal ñu ko rek ci mayi Serigne bi ndax nit ñi lañ ci mën a jëlee exactement. pour ñu mën a maanaam jëriñoo ba fekke bokk ñu maanaam day mel ne kon bu buñ amee ay buñ jàngatee may yooyu may yooyu rek day mel ne dafa am lu ñu fekke ci moom mhm. waaw xam nga sëñ Tuubaa moom léppam day ay may moo tax euh, thème bu am solo la ndax waxtaane may sëriñ Tuubaa yi dafay yokk pas-pas ci taalibe yi day gën a dëggal seen yaakaar ci sëriñ Tuubaa mooy tax tey euh, musée bi nga bëgg a taxawal taalibe bi ci war a jëf day xam ne lépp lu ci jëf kii mu koy jëfal jar na ko ndax waxtaane nañ may yi nga xam ne yàlla nga ko may taalibe yi ci darajee Serigne Touba léegi kon may yooyu bu ko taalibe bi teeloo dana xam ni ki sàkku lii ci boromam sàkkul ko ko mënu koo fay mooy tax lépp luñ taxawalal Serigne Touba mu def ca pësteef def ca pas-pas loolu moo tax ñu tànn te mu may yi bi waaye ci may ñu indi ci xaaj boo xam ne nag taalibe yi war a liggéey lii am na lu leen Serigne Touba fàggul ci yàlla loo xamante ni dina jar ñu takk seen loxo saay di ko liggéeyal ba keroog ñuy wàcc ab liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. li nga xam ne tey euh, euh, maanaam euh, ci njëkk ci njëlbeen amoon na ab jiixi jaaxal ci ñenn ci taalibe yi tey bu ñu demee ba gis ko mu doon réalité tamit am na boo xam ne maanaam peut message bu ngeen leen gën a dolli ci maanaam ni ko leen fas yéene jëfandikoo fa lan lañ ci mën a jàngate. murid yi dañoo fiir ci Serigne Touba moo tax boo gisee foto bu njëkk ba dañ koy bëgg xemmeem ko bu duñ bëgg dara doolee ko ci waaye photo bi boo xoolee sa yaram day daw ndax tafu jëmmi foto bi dafa bokk ci liy wane ni Serigne Touba amul morom ndax benn photo boo xam tey ñi ngi ko jël teg ko nit mën a yëkkati 30 millions def ci nit mën a yëkkati 20 millions def ci te boo génnee fii ñu jaay photo 850 nit ñi di ko waxaale kon jëmmi photo bi ci ngay mën di toll war nay toroxlu digganteem ak yàlla ndegam kii mu yaakaar ci digganteem ak yàlla moo mën a toroxlu le boroomam nii kon photo bi njàng mu rëy rëy ci nekk ci mbooleem mbokki talibé yi moom daal na ci ñëpp am na ci ñëpp am rek. daal bi tamit am na gën naa am bi gën naa am valeur bu baax a baax musée bi xanaa xamoo Serigne tuwaa mbiram lu doy war a ngi noonu fi ne bi jëm moom tabax yii ngay gis muy niru tabax dana yëgaat ndimbal moom tey mboolem tabax bu nekk Ndakaaru tabax bi yee ci gën ndax li fi fanaan fenn ci dëkk bi muy karaw sëriñ Tuubaa fii nga ko gisee ci biir yëre sëriñ bi dal li sëñ bi te sëñ Fallu Mbàkke mas nañ ko wax Mbàkke lu tax loo wax moom mu ne li tax lu ma wax moom mooy du dara lu bagage sëñ Tuubaa yii ma may jàkkaarloo mooy ay gaal ak yëf musée bi li tax ñu war koo visiter si sax te wut ci photo yi mooy bagage sëñ Touba yi boo jàkkaarloog moom loo teewlu ci yàlla ñaan ko suñu borom defal la ko ci dara ji sëriñ Touba kon musée waat na bi musée valoriser waat na Ndakaaru kon nag nañ gaaw ñu ne tam dem Touba tabax suñu musée te delloo suñuy bagage gaaw kii comme ni ma ko wax li ñu leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi nag fi nga xam ne ba tey moom mooy ci musée bi nga xam ne donc tey eh, ci ñaareelu fanu journée yi nga xam ne mooy journée Euh, semaine patrimoine bu Cheikh Ahmed Bamba euh, tey nag ñu ngi doon ànd ak benn waxtaan bu am solo ki ko doon def muy conférencier bi di Cheikh Bassirou Gueye euh, sëñ Makhtar Dieng yow nga bokk ci kuréel Jaysum bu Masaalikul Jinaan waaye tamit fekkee événement bi tey boo ñu doon maanaam jàngatal waxtaan bi nga xam ne jëlee nañ ko fii tey ci musée bi ci par rapport ak journée bi lan lañ ci mën a jëlee ci li nga xam ne moom mooy mayi sëñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ziare Serigne Mountakha Mbacké xalifa général murid nga xam ne liggéey bi ñuy def lépp ci kilifaam lañ koy def di ziare fee ñu jógee tamit Serigne Mbacké yu fay mi nga xam ne mooy jëriñu Massalikul Jinaan Serigne Bass sax la ñu war a njëkkee waaye Serigne Mbacké yu nga xam ne mooy jëriñu Massalikul Jinaan ñu ngi koy ziar di wax ne ci kàddoom la ñuy waxee ndax saa bu ñu génnee rek ci kàddoom la ñuy waxee kon ñu ngi ziare bu baax a baax comme ni nga ko waxee Serigne Bassirou Gueye ñu ngi koy ziar indi na thème bu am solo mooy Serigne bi ak yàlla li mu ko may li mu ko may rek mooy barki dem bi jógee Sarsara xam nga ne ñoo àndoon dem sa Sarsara waaye gis nga sëriñ bi li ko yàlla may Sarsara nga xam ne Mauritanie fu sori la man ni fi mag ñi doon demee sax dama daan jaaxal sëriñ bi daan tànn mag ñi fa kon loolu rek yëpp ci may la mais gis ne Sarsara sëriñ bi am na fi ñeenti at yooyu max suuf lañ ko ko joxee wakkaan akkan xasida yu fa la ko bindee loolu rek benn étape la ci ku ne xam na ne sëriñ bi Masaalikul Jinaan rek ci mayu sëriñ bi la bokk mën nañ ko wax fii ñu nekk rek nga xam ne ñaari guddi Ndakaaru yi sëriñ bi sonn na lool ci Ndakaaru tey Masaalikul Jinaan am nañ ko ku ne xam na ne Gabon dafa gis nga li xew Gabon nga xam ne sëriñ bi yàgg na fa lool ak tartar yeeg métti yi waral tey ñu am màggal Tuuba kon sëriñ moom bu ñu fi doon tey doon wax li ko yàlla may dafa bari noonu lañ fi fanaan sax waaye lii it am nga xam ne lu am solo la mooy sëñ ñoom sëñ sëñ Xaarim Ngom ak kilifa yooyu nga xam ne ñoo dem ba jëri foto bi ak ñoom sëñ Bakk yu fay ak euh, sëñ sëñ sërif nga xam ne lii ñu am tey toog ci musée bii di fi waxtaan ndax musée man maa fi doog a dugg tey waaye photo bi moom laay gën a insisté rek photo bi moom li ci sëriñ bi li ci sëriñ bi def mooy ci may yi sax laay wax ndax loolu ci may yi sëriñ bi la bokk euh, yoonu murid yàlla may may na leen doole goo xam ne lu ñu bëgg mën nañ ko def ndax lii photo bi foto boo xam ne ay milliards ay millions lañ ko jënde millions lañ ko jëndee indi ko pour murid yëpp a ci war a nag loolu nag moom ndax musée bi ñu war a liggéey fële teg ko ci loxoy sëñ Sërif loolu moom murid yëpp photo bi dañ ci war a wecceeku ndax ñu mën a defar musée bi musée bi moom sëriñ bi da ko def rek pour murid yi nga xam ne ndax sànq gis nañ fi sëriñ Abdoulaat ñu ngi koy sant baax a baax ndax sëriñ Abdoulaat ku la xam ne ne bagage sëriñ si ëpp moo ko yore te musée bi ñëpp nañ ñëw ndax fii ku fi ñëw di ngay gis loo mos a gis ndax bagage sëriñ bi man ma koy doog a gis li may doon murid judd ci yare fi màgge ji xëy na fu ma ko gis ay verre laa waaye teg ko tey sama bët am ñoo xam sax laal nañ ko kon fii musée bi ne ñëpp ñëw rek te xam ne loolu lépp ci mayu sëriñ bi la la bokk ndax fi toll nii loolu rek maa ngi koy waxat ci mayu sëriñ bi mooy benn benn photo sëriñ bi wala ben yëre sëriñ bi yëre bi rek yëre ñu indi fii jar na junni million benn benn yëre yëre ku ko jëloon boo ko jaayeen junni million ma jënd ko kon loolu ci mayu sëriñ bi la bokk kon sëriñ bi lu mu mën a laal rek nga xam ne laal na ko rek day day day day day day mën a jar lu jeex sëñ Basiru am di gis nañ ko léegi nga xam ne li mu yor gaal gi mu yor gaalu sëriñ bi la tey bu ko tegoon fii bu ko jaayee téeméeri milliards yu jënd te gaal gi rek benn gaal rek la te sëñ bi ay gaal yu bari la ci yóbbu loolu lépp ci mayu sëriñ bi la loolu nag mënoon nañoo xuus dugg ci biir waaye loolu rek ndax temps bi dafa xat kon loolu rek ñu leen sant bu baax baax nga may léegi ngeen ñu may pour ñu mën a exprimer wax ci sëriñ bi li ko yàlla may waaye loolu lépp dafa bokk ci mayu sëriñ bi waaye sant nañ bu baax baax lii ñu sëñ bi daal defal nga xam ne jëmmi rek moo indi lii nga xam ne ñu ngi ko tëjee ñu ngi ko tàmbalee de le 6 dem Kisfa place nga xam ne méridien ko sëñ Bass kon sant nañ ñëpp di gërëm ñëpp di bég bu baax a baax ci murid yi ni ñu gisee photo bi xam ne lii kat sëriñ bi la ñëpp da wuti ko kon ñëpp nañu ko wecci ko rek ndax wecci ko rek moom mooy mooy tax musée bee ñu mën koo def jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf lii la leen jëraloon tey fi nga xam ne moom mooy ñaareelu fanu exposition bi nga xam ne nii mi ngi jëm ci semaine patrimoine bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbokk yi dégg ngeen li fi jotoo jaar ci ay témoignages waaye itam ci visiteurs yi li nga xam ne moom la leen jaral tey ak yëg-yëg bi ñu am bi ngeen gisee li nga xam moom mooy photo yi gis li nga xam moom mooy satala yi gis li nga xam moom mooy yére yi gis li nga xam moom mooy mbaxana mi waaye tamit li ci gën a yéem gis li nga xam moom mooy karaw sëriñ bi bu ñu demee ba tiim ko ak kafe yi nga xam ne tamit moom la doon jëfandikoo lenn ci ay café yoo xam ne maanaam des na fi mu doon loo xam ne nii yéem na taalibe tey yi fi daje yëpp tey waaye tamit bi ñu jógee ci euh, li nga xam moom mooy visite bi am am na ñu xam tamit jënd na nañ ay nataal yu bare bare bare fas yéene koo yóbbu ngir barkeloo ko daal koy exposé tam fi nga xam ne moom mooy seeni i salon seen i chambre ba nga xam ne dana leen dolli ak mbégte ñu daal koy nag jeexale ak waxtaan bu nga xam ne waxtaan bu am solo bi nga xam ne ni Serigne Bassirou Gaye def na ko lépp jëm nag ci may Serigne bi ndax may Serigne bi moom ku ne xam ne dafa yaatu de ñu xam ne bu buñ fi jógee nag lépp liñ fiy liggéey nag lépp wala lépp luñ fu dajale ci koppar fas yéene koo yóbbuwaat fële nga xam moom mooy dëkkub Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ndax lépp moom la lépp moom moo ko moom ñu daal ko fay sampal benn musée boo xam ne nii ca la fas yéene denc bagage am lépp ak jumtukaayam yëpp. waaye itam ci ay mbindam yooyu yëpp nga xam ne tey mboolem taalibe yi ñoo jóge fu nekk ci réew mi ñëw di visiter li nga xam ne moom mooy musée bi te musée bi eh, ñu gën koo jox nag li nga xam ne moom mooy jëmm gën koo gën a valoriser tey ndax li nga xam moom moo fi fanaan eh, ci ay maanaam eh, bagage yi sëñ bi loolu yëpp nag tey mbokk yi moom moo nekkoon fi nga xam ne moom mooy ñaareelu fanu journée bi ëllëg incha allahu rabbi moom mooy nekk ñetteelu fan bi nga xam ne donc ñu ngi ciy fas yéenee ànd ak yéen ci ay waxtaan yu am solo thème bi nag thème suba bi incha allah rabbi muy waxtaanee ki nga xam ne moom mooy benn jigéen bu am màggal gi muy soxna jaaritullaahi di kenn koo xam ne maanaam tamit li ñu war a jël ci moom ci ay référence boo xoolee ci turandoo yi rek ak bésam bii ñu dëkkmal ñu fas yéene cee waxtaanee bu baax a baax jikkoy jigéen ñi seen taxawaay rawatina nag buñ bëggee roy soxna jaara mbokk yi jërë ngeen jëf dig dajee ëllëg. ilaa wali